asalaamaaleykum. maaleykum salaam. voilà euh, comme ni ma ko waxee ah suñu ndaw li nga xamante ne bii moo ñu teewal foofu noonu ca cybercriminalité ci subaat tey ñu gis ni donc toute la presse sénégalaise ñu ngi fa ngir rek taataan ay xibaar yu dukkee yu euh, tukkee ci ñi nga xamante ne bii ñoom la ñu fa teg ku ci mel ni Bougane Gueye Dany Cheikh Yérim Seck ba ci euh, Kader ja mais en résumé ñu ñëw ci li fa xew tey ci journée bi yëpp lan lañu mën a jàpp jii. alors euh, ñu ngi leen di nuyu di nuyu ñi ngeen xam ne ñoo nekk ci seen euh, plateau bi en direct euh, depuis ce matin ba léegi nag ñoo ngi woon fi nga xam ne rek moo di ci cybercriminalité bi nga xam ne moo nekk ci côté mosquée omarienne gis nañ depuis huit ba léegi ñu ngi taaxeerlu ki nga xam ni moo di Bougane Gueye Dany di leader mouvement euh, gëm sa bopp waaye itam euh, nekk euh, journaliste nekk itam patron de presse gannaaw bi nga xamee ni rek daal dinañuy convoqué ki nga xam ne aussi journaliste la di Cheikh Yérim Seck ak Kader bu Sen TV ñoom ñaar nag dañ leen a mettre dañ leen a placé en garde à amoon nañ sax ñoom ñaar retour de parquet mais tey ki nga xam ni. mu attiré woon l'attention mooy ki nga xam ni moo gën a virulent euh, ci pouvoir bi nga xam ni mooy pouvoir bu yees bi euh, di euh, Bougane Gueye Dany am na ñenn sax ñoo xam ni ñu ngi koy duppee li nga xam ni rek moo di chef de l'opposition ndax moom rek la ñu gis jamono ji ci landerneau politique bi muy opposé wu a Ousmane Sonko gannaaw nag bi ñu ko convoqué fi nga xam ni rek moo di cybercriminalité ni ki démb moom tamit def na réaction mais démb ak ci suba xamuñu woon lan moo waral li nga xam ni rek moo di convocation bi mais li nga xam ni rek jot nañ ko am aslëf ci information moo di moom dañ koy toppee diffamation ak injure publique ci ak li ñuy wax naan falsification de de de de de de de de document ci benn noonu lañ koy toppee muy mel ni Ousmane Sonko gannaaw bi nga xamee ni en tant que premier ministre génn daal di def ay révélation jëm. Euh, ci finance publique yi ni muy doxee ak yenn ci ay euh, document wala sax ay chiffres yoo xam ne dañ ko daal di maquiller dañ ko daal di euh, falsifier ngir rek daal di nax ñi nga xam ne ñoo di investisseurs yi ngir ñu mën mën leen a gën a lebal xaalis ci kàddu yooyu la ñu njort rek ci information yu jot ni moom la ñuy toppee. ki nga xam ni euh, moo di euh, Bougane Gueye euh, Dany gannaaw moom itam bi mu defee conférence benn conférence de presse di weddi yi nga xam ni Ousmane Sonko daal dina koy yëkkati jëm ci chiffres yi nga xam ni rek doon nañ ko avancé jëm ci finance publique yi. mais tey li ñu ci mën a jot daal moo di moom Bougane Gueye Dany am na benn pôle avocat bu dëgër boo xam ni maître Doudou Ndoye mi ngi ci. maître jibi jàlloo mu ngi ci maître El Hadj Diouf bi nga xam ni euh, aussi euh, mu ngi ci euh, pôle avocat bu ki nga xam ni rek moo di Bougane Gueye Dany mu nekk nag benn pôle d' boo xam ne ay ténor avocat ñoo ci nekk ñoo yàgg layal ay ay jàmbaar ñu yàgg layal aussi ay homme politique ci réewum Sénégal ñoom ñoo tey ji ñoo ànd ak moom nga xam ni moo di ca cybercriminalité ngir dégg di koy déglu ci enquêteurs yi waaye li xam ni rek moom lañ ci mën a noté ci suba ak ak léegi gis nañ Bougane Gueye Dany bi mu ñëw ànd na ak mbooloo euh, boo nga xam ne ñoo ànd ak moom jóge kër góor kër si te kër góor gi nga xam ne moom la dëkk mu def a benn convoi ñëw bi mu nekkee nag ci cybercriminalité ci suba gi amoon na xët-xët yoo xam ni amoon na ci euh, diggante way takk der yi ak ñenn ci ay militant yu euh, Bougane Gueye euh, Dany coow li daal di ne coobay mujj gi itam moom Bougane Gueye Dany dafa daal di calmer ñi nga xam ni ñoom la daal di àndal jëm fi nga xam ni rek moo di cybercriminalité di wuñu ci convocation boobee gis nañ ko aussi benn fait bu marquant boo xam ni Bougane Gueye Dany waxoon na ko ci benn sortie bu mu defoon ni dafa doom toog nekk ak doom doom bi ne ko papa sac bi lu mu def fii mu ne ko préparé pour dem ca kaso ba gis nañu saag boobu aussi muy mel ni indi na ko tey euh, ki nga xam ni moo di Moussa Niang nekk bras droit moom moo ko yor ñu ànd dugg fi nga xam ni rek. moo di ca cybercriminalité mu mel ni moom bu Bougane Gueye Dany dafa daal di njort rek ni moom tey jii mën nañ ko def garde à vue mën nañ ko téye mu daal di fanaan fi nga xam ni rek moo di commissariat ngir ñu gën a wéyat l'enquête bi moo tax mu daal di indi li nga xam ni rek moo di sac à dos boobu nga xam ni ci la daal di def ay yéreem yoo xam ni dafa njort ni buñ ko téye mën na ko euh, sol foofu noonu li nga xam ni itam beneen xee bu marka la boo xam ne daal dinay am ci nga xam ni moo di ca cybercriminalité ni ki démb euh, ca euh, des investigations criminelles cybercriminalité journalistes yi dañ leen a xañoon seen a euh, ko amuñu ko foofu fi nga xam ne rek moo di cybercriminalité mais benn jafe-jafe bi nga xam ne journalistes yi am nañ ko ki nga fi nga xam ne moo di sans limite ak ki nga xam ni moo di Mati Sarnia moom itam nekk journaliste foofee ca sans limite dañu leen di euh, daal di rek euh, attaqué bu ñu sukkandiku aussi ci information yi nga xam xam ni jot nañ ko yëf mi ngi jugee ci ay. amoon diggante ñoom ak ñi nga xam ni rek ñoo di ay militant yu Bougane Gueye euh, Dany donte sax coow loolu taxu ko am doole loolu mais gis nañ ci nga xam ne moo di Mati Sarr ñaar dina ci am ab gaañu gaañu ci kanam bi ci côté jëb yi doon yëpp ngi am gaañu gaañu ba deret xaw ko tuuru waaye force de l'ordre ñoom itam ñëw nañ def ci liggéey bu am solo ndax ñëw nañ daal di fexe ba teqale ñi nga xam ni ñooy militant yu Bougane Gueye Dany ak journaliste yi nga xam ne ñoo toogoon foofu. alors alors Abdou Khadre allo. Euh, ci Ngone Sarr moom laa bëgg a des ak Mati Sarr Mati Sarr gis naa ni dañu ko xaañ ci jëb bi mais lan moo waral ñu euh, song ki nga bi mooy ngoone Sarr yi ndax dafa amoon ay échange entre ñoom ak voilà gis nga Mati Sarr ngi noonu dañu ko xaañ xeer ci jë mais ngoone Sarr donc lan la def militant bu gaañ bi ba ñu song ko. bon jotewu ma woon nag fi nga xam ni foofu la xeex bi amee. mais mm. après bi ma laajee yenn ci ay militants ñoom nee nañu. Euh, daal vraiment li muy attaqué seen leader ak ñenn ñu fa jaar di leen yuuxoo di yuuxoo foofu naan sonko sonko euh, moo tax rek ñu daal di koy attaqué mais bëggoon naa aussi jot ki nga xam ne moo di Ngone Saliou ndax bi ñuy dugalee élément bi envoyé naa ko pour au moins avoir sa réaction gis naa aussi vidéo bu ñu dugal euh, ci moom mais j'ai pas eu le temps daal di koy déglu mais daal coow loolu moo gënoon a fës ci nga xam ni moo di ca cybercriminalité entre Ngone Saliou bi nga xam ne journaliste la fi nga xam ni moo di nga xam ni rek ñoo nekkoon foofu accompagné Bougane Gueye euh, Dany euh, ca mbir moomee ci ginnaaw bi aussi gis nañu ki nga xam ni moo di euh, Salma Fall moom itam journaliste la ki nga xam ni moo di ci sans na fa coow ak Adama Fall te Adama bi ko dégloo nee na dafa fekk coow li mu bëgg leen a écarté bëgg leen a jàppale bëgg a xamal yéen ay journaliste yéen kenn waru leen a dégg ci ay affaire fii nga far ak fii laa far loolu indi na woon coow yoonam nekkul woon ci convocation liggéey yoonam nekkoon ci liggéey ba tax ñëw noonu bu liggéey mais nee na dafa dégg coow li ñu attaqué ki nga xam ne moo di Ngone Sall mu ñëw di ko jàppale joo di prendre part suñ ko sax naan naan ñoo tey faral Ousmane Sonko yooyu mais lu mel noonu la ko Adama sa Adama Fall doon ko jël donte sax am na ñu bëri ñoo xam ne ànd ñu ak Adama Fall am na ñu bëri ñoo xam ne ànd ñu aussi ak ki nga xam ne moo di euh, ñi doon euh, dóor ñi nga xam ne moo di journaliste yi ànd ci mais daal lu ci mënti am moo nekk fait bu marquant boo xam ne am na fi nga xam ni moo di cybercriminalité beneen bi nga xam ne aussi am na ca ku ci mel ni euh, Pape Djibril Fall nekkoon député à l' assemblée nationale bokk ci coalition bi nga xam ni moom ak Bougane Gueye Dany ak Serigne Moustapha Sy Barthélémy Dias ñoo ko bokk ñëwoon na teew ngir apporter son soutien à Bougane Gueye Dany mais bi mu ñëwee ba ci euh, buntu euh, cybercriminalité dañ ko daal di xamal ni mënoo dugg ci biir ndax jamono ji moom Bougane Gueye Dany mi ngi ak ay avocat wam enquêteurs di ko déglu ci li nga xam ni rek moom lañ koy tuumaale keneen koo xam ni itam daal dina ki nga xam ne moo di Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly moom mi nga xam ne aussi député la woon ci assemblée nationale ñëw na apporter son soutien. ah Bougane Gueye euh, Dany xam ne ni moom taalibe ab Serigne Touba taalibe Serigne Touba ba bu nu jàpp euh, li ci gën a marqué aussi moo di Pape Djibril Fall kaddu yu mu nee na gis nañ fii li nga xam ne moo di Cheikh Omar Diagne yëkkati na ay kaddu yu ñaaw teg ko ci Serigne Touba yëkkati ko teg ko ci El Hadj Malick ak Cheikh Omar Foutiyou Tall Touba wax na ci Touba wax na ci mais dégguloo benn yoon état du Sénégal jël ci ay matuwaay dàq ko wala ñu woolu ko mu expliqué wala mu demande pardon mais xam ne rek yaa ngi wax liberté d'expression ñu jàpp ci kaso bi nee na sax naam nit mën na juum ci li nga xam ni moom lay liggéey mu di journaliste ku ci mel ni Kader ak ku ci mel ni euh, au moins euh, si Cheikh Yérim Seck bi nga xam ni moom tamit daal nañ koy téye ni ki démb mais moo di ay opposant mais nee na mu xam ne daal moo di ko coalition bi yees boobee euh, di sàmm sa kàddu nee na loolee daal duñu ko duñu ko ko may tey duñu ko ko may ëllëg daal di dem ci ay élection gagné xañ ko li nga xam ne rek moo di euh, euh, majorité ci assemblée nationale waaye itam leneen loo xam ne itam bokk na ci moo di ku ci mel ni Assane Diouf ku ci mel ni aussi Anta Babacar Ngom ku ci mel ni aussi euh, Thierno Bocoum ñoom itam ànd nañ ak Bougane Gueye Dany accompagné ko depuis bi nga xam ne nii jugee na ci këram ci cité Keur Gorgui ñëw fi nga xam ne rek moo di cybercriminalité nee na tentative yi nga xam ne moo di tentative de musulman ak tentative acharnement bi nga xam ne am nañ ko ci ku jë ci ku jëg ko bàyyi ndax lii tax loolu ñu doon xeex ci mars deux mille vingt ba ci atum mu di li nga xam ne moom lañ tegoon Ousmane Sonko ñoom ñi ko doon xeex tey moom la Ousmane Sonko nekk di ko teg ñi nga xam ne ñoo opposant yi du nekk du samay kàddu nag kàddu ñoom Thierno Bocoum la. alors li ma la li ma la li ma la bëgg a laaj mooy. ñoom Moustapha Diakhaté ñoom euh, euh, Cheikh Mbacké Abdou Bara Dolly. d' accord euh, Abdou Khadre lan la ñuy toppee ki nga xamante ne bii mooy Cheikh Yérim Seck. Euh, bon Cheikh Yérim Seck su ma juumul day mel ni diffamation lañ koy lañ koy lañ koy toppee ak euh, publication de fausse de fausse information yaakaar naa loolu loolu lañ koy euh, loolu lañ koy toppee. am na ñuy njort ni sax dafa laale itam ci mbirum ki nga xam ni rek moo di Jérôme Diouf Jean Jérôme Bandiaki di sniper bi nga xam ni mm-hmm. jàppoon nañ ko ci ay wàllum détention d'armes sans autorisation ak usurpation de de fonction yooyu lañ ko doon toppee muy mel daal moom. Euh, euh, ki nga xam ne moo di Cheikh Yérim Seck aussi ci wàllum diffamation la ñu koy euh, daal di toppee jëm ci dossier yi nga xam ne rek moom la tax ñu daal di koy arrêté. Bougane Gueye Dany lan la ñu koy toppee. allo. alors Bougane Gueye Dany lan la ñu koy toppee. waaw maa la koy wax sànq Bougane Gueye Dany aussi ci information yi may jàpp bu fekkente ni vérifié nañ ko dëgg-dëgg ndax ñi ngi xaarandi avocat yi bu ñu génnee naka la ñuy indil ci audition bi euh, diffamation ci la bokk diffusion de yaakaar naa de fausse nouvelle ci la bokk waaye itam ak euh, injure euh, publique ci cadre yi nga xam ne yëkkati woon na ko jëmee ko ci premier ministre cadre yi nga xam ne na ko ñeen finance publique bi keroog ci conférence de nga xam ne doon na ko def ci cité kër góor gi bi gouvernement bi jàkkaarloo Sénégal di leen xamal li nga xam ni rek moo xew ci finance publique yi. merci beaucoup Abdou Khare ñu ngi lay gërëm. jërëjëf di ko gërëm bu baax a baax di ko jaajëfal moom mi nga xamante ne bi moom mooy suñu ndaw li ñu euh, toogal foofu noonu ca cybercriminalité ñu woy rek euh, xuus ci waxtaan